mbokk yi faral di ànd ak ñun ci seen naafilay bés bi ci groupe communication université Cheikh Ahmad Bamba seen rajo UCAD FM 103.5. mbokk yi guddi juróom-ñeenteel gi ñeenti rakka la rakka bu ci ne ginnaaw fatiha mu jàng tabbat yadaa ñetti yoon teg ci qul huwa allahu ahad benn yoon kon mbokk yi képp koo xam ne taxawa nga julli goog incha allahu rabbi dees na ko bindal tuyaabaay muñkat yépp ak santkat yépp te mbokk yi xam na ne tuyaabaay kat yépp comme ne ko suñu boroom wax sunu boroom kat mi ngi ànd ak way muñkat yi waaye sunu boroom kat nee na ngeen sant ma ma dolli leen dina mel ni itam ku wàcc ab kaamil mooy nga jàng alquranul karim wàcc kaamil bi yépp ba mu jeex des na ko bindal tuyaabaay ku jaamu yàlla subhanahu wa taala juróom-ñaar xam ne julli te dees na digal ñaari malayka ñuy far ay bàkkaaram di ko bindal ay tuyaabaam ba keroog bi si ba